mbokki asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ñu ngi ñaanal mbooleem xalif généraux yi na ci biir réew mi yàlla bàyyi leen fi nu wér ñaanal bu baax a baax sëriñ Babacar Sy Mouhamadul Mansour xalif général des Tidianes nuyu ko ziyaaro ko ndokkeel ko ñaanal ko mu wér mu wér lool lool nuyu sama sëriñ sëriñ Maodo Sy Abdoul Aziz bu ma ko nuyoo ñaanal naa sëriñ Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides ñaanal ñëpp ndokkeel ñëpp mbokk yi ñaanal naa mbooleem ëttu këri diina ji mbooleem xalif généraux bureau yi bàyyiwuma kenn kenn kenn ñaanal jiitu réew mi ñaanal mbooleem candidat yi nga xam ne nu ngi wut réew mi ñu xool kan la ko ci yàllay jox na gën ci réew mi gën ci moom Sénégal jëm kanam ñaanal boroom kër gi président Youssou Ndour ak télévision Futur Média daa ngeen bég mbokk yi nañu bàyyi waat xel sunu bopp émission baa ngoog les cinq minutes de Pape Hann yaa ngi may topp démb gis nga fi nu wax naa la mbiri ruux li koy dundal léegi xam ko ci li nga xam ni yàlla moo wax ni boo ñëwee ci man te loolu baaxul doo aksi te xam nga ni dugg aljana gis yàlla ko dax dugg aljana laa wax nee naa la dugg aljana dugg aljana gis yàlla moo ko gën a neex te yàlla nee na ci man yàlla alal du fi jëriñ askan du fi jëriñ wax naa la ko démb ak ku la mën a jur yàlla nee na li fi jëriñ ak li la fiy indi mooy xol bu laab laa yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salimin ay diw mii bi mu am maa ko jur yàlla nee na jaru jaruñu fi de diway sama baay yàlla ne loolu jëriñul de diway sama maam yàlla ne loolu jëriñul de xol bu laab moo fiy jëriñ xol bu laab am na koo xam ne nag day toog di mer ta kenn defu ko dara ah. waaw di mer waaw di mer am na ko saa yoo ko gisee da gis kanamam billiwul mais am na ko xam ne saa yoo dajeek moom xool kanam nga billi xamal ni tedd ngaa ngi ci moom xool bu laab wax naa la ni la xool dañ koy examiner comme ni ngay examiner sa jëmm dem hôpital def bilan ñu wax la ni la amee nga jabet awa amee nga tension ñu ngi lay tere nangam am na feebar bu ne ci yow nanu ko xool waaw ni ngay examiner sa jëmm ji noo nii nga war a examiner sa xol waaw xol bi yow sa jëmmi bopp yow yaay examiner sa xol alxalbu yumtaxanu kama yumtaxanul jasadu boo ko examiner nag nga toog xool dugg sa ruq mën a kan xool yow ba xam diw mii li mu am yéene nga ko ko wala yéene woo ko ko Hajj Malik mii fi mu toll yéene nga ko ko wala yéene woo ko ko yaay xool sa xol war yàlla waxoon rasulaay ni ko bul sonn Mamadou mu ni ko naam mu ni ko li nga bëgg du ne xam nga li nga bëgg man xam naa ko parce que yërnu naa sa xol ba xam li nga bëgg mu mel ne yonent bi def ni ko yàlla lan laa bëgg mu ne ko ñii nga bëgg ñu ñëw mooy ñoom Walid ibnu Mughira ñoom Xaaris ibnu Nadr ñoom Aswad ibnu Mutalib ñoom Aswad ibnu Abdul Yaguus ñoom Rukaanata ñoom Utbatoog Otayba saay si bari alal bari l'islam ay néew doole di ci dugg nga bëgg saay saay siy ñëw Mamadou du ñu ñëw parce que ñii seen xol yee muuru seen xol yi moo muuru munoo wax a wax ba nu gëm la du ñu ñëw te moytul ma borom alal bu nekk wuyu day ami moyen borom xaalis bu nekk bandi day ami moyen rasulullah yàlla ni ko ñii am nañu xam-xam ba noppi nekk ay bandi xoola aba jeexlin abo jeexlin xam moom lan wax nee na bi arab de arab man abu jahlin muy tudd amr ibn hisham wala amr ibn hisham ku ma ëpp xel amul ku ma dàq wax maanaam ëpp ma fasaxa mooy éloquence amul waaye lenn rek moo ma xawoon a jaaxal jommal ma mooy alquran gii Mouhamed di wax xam naa bi arab dee arab ak léegi wax junni ni mel musul am waaye pourquoi mënul ñëw parce que xolam moom muuru yàlla wax yonent bi ni ko kallaa barrana ala qulubihim mukk seen xol yi moom muuru duñu ñëw yow rasulullahi mënuñu ñëw waaye moytul ma borom xaalis bu nekk bandi wala yonent bi ci mbaaxam daan na bañ nuy waxtaane démb bu saxaaba yi daan toog xoolal ñi ko bañoon seeni doom ñoo bëgg rasulullahi xoolal ñi ko bañoon seeni sët ñoo bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam xoolal ñi ko bañoon daan ko teg lor seeni sëtaat ñoo jeex tàkk ci yonent bi xoolal Xaalid ibn Walid xam nga kuy bàyyam Walid ibn Mughira daan ko teg lor bañ ko xoolal Ikrama xam su ma la waxee kii ko jur da nga naan déedéet di di jàmbar ci saxaaba yi baayam keroog xare Badar Abdullahi ibnu Mas'ud moo koy jekkali mooy Aboo Jahlin mu ne Abdullah ibnu Mas'ud xaaral ma yónni la bala maa dee boo demee nga ni Muhammad maa ngi nii di dee waaye tey laa ko gën a bañ mu ma ba jéglin moo jur Ikrama moo na ñool Màkka daan wax ni boo leen waxtaane démb jaru ko gars yi nañ waxtaan li sunu kanam waaye démb moom wees na parce que day bañ ñu euh, déstabiliser gars yi parce que tudd sa baay naan dafa bañoon yonent bi daan ko teg ay lor ak loo bëgg-bëgg yonent bi di nga am naq di gën a am naqar moo daaw ñu waxtaane démb xam nga mbaaxu rasulullah loolu kenn xamul lu mu toll waaw mbaa xam la kenn xamul lu mu toll moom yonent bi kon mbokk yi li yàlla wax yonent bi ne ko du ñëw parce que ñii seen xol yee muuru xol bu muuru nag alaaj mi sàndoo ci caméra bi Alioune Sine ci caméra bi ba suba ak jàmm Mixwell meew mu sell si weer wu sell Sucria mooy bégal Sénégal gépp ci seeni ñamu